Bienvenue sur Salam Vision. waaw ñu ngi lay jaare bu baax a baax. yàlla ko yàlla nangu ñu bokkoo yoon bi. na ngeen def ak coono yi. ñu ngi sant Serigne Salim. yal na yàlla xeeb dolli. naka mbokki xel koom. mu ngi fi ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah tabarkàlla. tabarkàlla bi. Hmm, xanaa masawuloo coono rek bu ci njëkk. waaw. waaye gannaaw yàlla daa dogal moom vaar dafa xew te waxoon naa la ko bërki démb. waaw. Hmm, match bi de daa mel ni fi ne daanaka la nga ca waxoon yëpp daal fi mu toll nii ak fi situation yi mujjee. waaw daanaka am na am na nu mu demee. waaw waaye am na loo ci leeraloon daal ne nag wax dëgg yàlla am na ci yàqkat yu am ba démb ñi nga xam ne ñoo ñëwoon sa kër. waaw jël ay bokk nag teg ko ci sa oto bi yow fi mu ne nag lan nga ñu mën a wax ak vaar bi nga xam ne daa xew ci réew mi ndax fi mu ne moom daa mel ni gars yi tàmbale nañ la tàmbale nañ laa vaar yow. Mhm. waaw mais sëñ bi ñun ñu ngi sant yàlla. Mhm. Euh, Sénégal bu la waar. Mhm. waaru la boppam la waar. Euh, réew mi ñu nekk di Sénégal. dafa doon naqaree waxee. dëgg la te looloo bari kilifa yu baree bari. Mhm. du nangu di génn di wax ci yenn yi. Mhm. nit ñi nan ñor waat am respect ci nit ñi. Mhm. man ay waar déranger ko moom. ndax avant waar wala avant coupe du monde. damaa amoon ay nit di leen ñaanal muy sama métier. teraanga di nit di am. am nañ ko ci ci kaw suuf. footballu Sénégal ngeen may gis ma génn di wax. déw ma ci télé di ko fay wóowu ma benn site di la fay toogu ci benn internet. wóoruma kenn. Mhm. tey bu ñu dóoree Sénégal. Mhm. Sénégal la ñu dóor. te nag wax dëgg yàlla dama amoon yeneen yitte. Mhm. yoo xam ne presque damay gën a ñor ca max. Mhm. ndax maa ngi ci liggéey. dëgg la volontaire nañ jaayante nañ yóbbu nañ leen huitième de finale. Mhm. avant Sénégal ay équipe yu mag dañoo toog gënuñu ña toog. dëgg la semaine bi ñu yóbbu la waar teewul yow nga xam ne nga xam avant waar wala avant coupe du monde amoon nga ñi doon ñi ngi doon ñaanal. li ëpp solo mooy yow la nga nekkoon yow sëriñ ba nekk ca. ñu la soxla woon ñu ngi lay soxla. ñu la doon ñaanloo ñu ngi la doon ñaanloo yaa ngi sant yàlla. Mm-hmm. sëriñ boobee na continuer di sant yàlla nekk ci la war a nekk. Mm-hmm. ku la waar waar waar wéeru la boppam la waar. ku la saaga saagawu boppam la saaga am tant que des mm-hmm. xam nga loolu bu mu la déranger samay taalibe yi ma mii yëpp xam na ne loolu du leen déranger. ndax ñun duñ waxante. kilifa yi am ci àdduna tamit di leen ñaanal xam na ne ñu nit loolu déranger wu. du dëgg. la. waaw l'essentiel na tey jii loolu rek mooy wax joo xam ne moo ci ëpp solo te am ci sens. Mhm. waaw kon nag képp ko xam ne daay wëlbatiku di la waar. Mhm. waaru la boppam la waar te loolu du waar ndax man avant coupe d'Afrique maa fi génn wax fi escort ni muy demee chaque match. Mhm. beneen sëriñ defu ko fi. avant coupe du monde maa leen génn wax nangam. vidéo bi di circulé ma naan Sénégal France. ba ma koy wax booba coupe du daa ñëwagul. déedéet vidéo ba ma koy wax Sénégal sax qualifié gul qualifié coupe Sénégal yëg si fii ba mu des benn mos ñu dóor ko sant yàlla. Mhm. ndax bu dóoroon France leer loolu neex yàlla. dëgg la de mais ko partagé ba ma koy wax nañ tàppe ci YouTube. Mhm. man damay bàyyi ba ne suba la may toog di wax escort vidéo bu ñu gis mhm. maa ngi ko wax avant coupe du monde. nekkuma ba coupe du monde jot ma doo ko wax man avant coupe du monde laa doon wax. benn vidéo dong laa fi def ci biir coupe du monde mooy bi ma solo lu weex li mhm. te naan arbitre bi mooy yàq match bi te match bi ñëpp xam na ne arbitre bi la waaw daf mel ni premier mi-temps am na ci wàll ndax mhm. am nay ko mhm. ñaareel ba même bu dul ñun ñoo yóbbu équipe bi fii mu nekk tey xanaa léegi fédération bi yóbbu woon équipe bi xanaa kon ñoom ñoo gënoon a ñàkk confiance seen bopp ndax la ñun Sénégal lañ dëkk xam nañ lépp hôtel bi ñu nekk ñoom bi ñu demee hôtel bi ñu daloon dama koo fay presque seen seen match yi ñu war pourtant bi bi loolu jeexee duñ leen a génne hôtel boobu ñu dem liggéeyaat feneen. xam nga man coow loolu maa ngi koy dégg dégg ni fi ne dañ leen a génne keroog le premier décembre ci lañ leen génne parce que la diir googu lañ fa yoon hôtel ba. loolu loolu dugg la woon. ba dégg naa dañoo mujj a tuxuwaat ci beneen hôtel lañ mujj a dem jëli jiwaat. waaw waaw loolu amoon na mais léegi xanaa kon ñooñu doon dem tey ak di yóbbaale milliards jox leen milliards xanaa kon la déggee ah non pas de waa fédération wala dara ñu ngi ñuy waar benn ak benn nit ci àdduna ku la waar boppam laa boobu la waar. Mhm. suñ ko coowee tey suba lañ koy coow tum ginnaaw suba nit ñi nekk ci leneen. Mhm. fii du question da ngaa wax loo xam ne amul. Mhm. am na ñoo xam ne wax na ay seetkat lan la ñu gis la ñu wax. dëgg la dana dem ba ci diggante bi mu soppeeku am na ñoo xam dañoo yoroon seen kuréel ci ñaan loolu la yàlla dogal. man li ma doon wax fu leer laa ko teg. te trois bii nii Sénégal moo ko moomoon. Boulaye Dia rate na ñaari bii. benn bi penalty la. Mhm. li ci des arbitre bi yàq na ko. Mhm. ndax ndeysaan loolu la ñi mënoon ñoom ñëpp nekk nañ di ci ñaan man maa ngi woon ci leneen lu ma gën a farataal wax dëgg fa yéen laaw. Mhm. bañ naa ko ba ñuy doon topp samay statistique gis leen bi mbiitaawee laa dem maa ngi doog a yegsi. ma yàlla baax na dana baax. bu leen découragé wu. même ñun bu ñu gisoon defet sax dañuy génn Sénégal yi dañuy am ndam. pour maanaam tension ñenn ñi ñuy wàccee rek. loolu rek aw yu nga cee am. du question nga fen wala question de pour dara. mais nga wax mais Sénégal muy réew moom dafa naqaree waxal. Mhm, dëgg la yi nag maa ngi jot fu ne maa ngi dégg fu ne man kenn xasuma kenn saaguma ñi nga xamoon démb ak bërki démb. Mhm. dan maa woo di may ñokk di ma ñaanal man maa ngi ciy sant yàlla. ndeysaan am na ñoo xam ne dañuy jël seen xaalis sax di ma ko ci yónnee. dèjà va te teewul la ñu nekkoon ña nga ca ñaan la ni def man bu dul coupe du monde doonu woon coupe d'Afrique nit mosuma dégg ma wax ci ba internet mhm. te bu jàllee nii nit du ma dégg am na nekk di ci wax ma am naa beneen jot bu dul wane sama liggéey ci internet mhm. man sëñ Dame loo am naa beneen jot bu dul boobu du ko wane mhm. du ma ko doxe benn egg télé du ma seet si nit du ma gis ma toog ci plateau di woote xam-xam te mën naa jënd te plateau te yi télé yi nekk Sénégal mën naa dem fay jënd ko ngir ñu may invité man du ma sëriñ boobu ni booy liggéey li liggéey sa diggante mi ñi da ngay wane preuve du dëgg. dëgg la de. waaw adduna bépp wala sëriñ sépp xëy na am nañ xam-xam man sikkuma kenn xam-xamam du dëgg. Mm-hmm. mais ñun ñi ngi sant yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mm-hmm. amuñu waar ku ñu saaga baal nan la jéggal nan la sa bopp nga ko def. Mm-hmm. bu subaa ginnaaw suba yëpp fàtte ko. amul la waaree sax sant yàlla promotion la lay may am nañu la xamul woon wala ñu la doon dégg mosuñu laa gis buñ la waaree ñu gis sa jëm <laughs> mbaadu ci mag bu ci jël nit waar ko ba docteur bu jël nit waar ko rek yaa ngi ko defal promotion promotion la mm, waaw waaw waaw am na ñoo xam ne xamuñu la woon te tey dañuy gis sa jëm boo jaaree fii suba ñu ne waa sëñ bi moo waxoon lii mm-hmm. am na ñoo xam ne jaral lay sot parce que ku dugg sa sama Facebook loo alali sëñ Saliou wala sama TikTok loo alali sëñ Saliou wala sama YouTube loo alali sëñ Saliou wala Salam Vision wala Kiki TV boo toppee yooyu da ngay xam ne ñun lépp lu ma soxla ci football mas am na. Mhm. loolu yàlla dogal. dëgg la bii rek la leen dóor te ñu ngi woon ci leneen amatul beneen problème ah. léegi man trois trois bi su ma ko déggee dafa mel ni sànq ci ngoon am na kilifa goo xam ne mu ngi dëkk booru Mbour. wax na ma ni moom dafa dem ba géej am yu mu doon listixaar waaye ne dafa gis maanaam ci biir listixaar gi ñetti xale tuut tànk fii ci Sénégal yoo xamante ni dañ leen a def ay sacrifice yoo xam ne te nee na ma ñi ko def ay sénégalais ñoo ko def def ko ay seeni doomi sénégalais ngir xañ équipe bi mu génn fi mu ne. match bu mu détourné la dañ cee tur deret ok te match bi kenn wuru cee tur deret hmm. man gisoon naa benn sëriñ bu ma bi doon mu ko wax oh li mu waxoon dëgg la hmm. match bi dañ cee tur deret senegal ñàkku mais Sénégal moo moom match bi hmm. man mi nga waxal nii ku ma tegaloon premier ma waatoon ci ne day gañe ndax moo moom match bi teguma ko ci luy jaaxaan seet lan ko defoon ak def ci lan cay def. Mhm. donte nag heure match ba ak yooyu yëpp nekkuñ ci woon di ñaan wala ñuy def leneen. Mhm. parce que man damay génn wax avant match. dëgg la wax na mi demee ñaan yàlla pare ca loola. Mhm. soo amee sarax dama koy génneel sama xaalisu bopp ak ñi ma ko sañ a wax. ñu def ko en tant que de Sénégalais. mais nekkul loo xam ne dañ koy wax di ca dogu. dëgg bu doon sunub liggéey ñu dogu ca dañuy dogu nit na la force day am. kenn mënu ci dara ko dul yàlla. nekkul lu ñu dog sama wax yëpp boo gisee yàlla laa jiital incha allah bu soobee yàlla bu neexee yàlla ci doog la suñu borom. Mhm. tey lii moo neex yàlla. waaw kenn mënu ci dara. waaw tëggu tëggu ma nit wax la ma def dara wala leen. Mhm. mais ma dee suñu liggéey bopp entraîneur na ñaanal réew duy jaaxaar. mais bu dee nga ñaanal nit ak nit bokkul nga ñaanal réew ak réew. Mhm. su dee nit ak nit mën nañoo toog waatal la la force. mën nañoo toog digal la amul ku koy dindi. loolu bokkul ak ñaan am réew moo xam ne àdduna bépp ci teg seen bët ku nekk ak la ngay def ak la ngay yàq senegal lool la rek. dëgg la de. waaw bon sens lan waajuwaat ñoom nekk ci leneen jàggu wut ay ñaan lépp lépp. Mhm. loolu la rek. nga xam ne kon ñu bañ laa téye ci ligne bi lan moo doon kàddu yu mujj yi ak soññe bi wala message bi nga xam ne yaa ngi koy yóbbu yónni askanu Sénégal rawatina soppe yeeg am di jàmm yeeg taalibe yeeg mbokk yeeg ñëpp ñu lay seetaan di la déglu itam. waaye kàddu yu mujj yi daal passé wu lu dul di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. man sëñ Dame Lo képp koo xam ne da ma doon topp ngir coupe du monde bi rek wala ngir ñaan loo ma. Mhm. wala ngir di xool man naa wala mun. Mhm. jërul na may woo jërul nga may jël sama numéro am naa beneen jot bu dul boobu. te li ëpp li koy def ci nit ñi wala ñu ñu di la waar wala ñu ne dangay carte kat la. dañ ca teg seen xaalis perte mer wala. ñii waar ñëpp nag laa wax ay carte kat la. man ah, moo tax man avant coupe d'Afrique laa waxoon score moo tax coupe du monde ba tax ba carte kat bu ma woo sax dama lay coupe mhm. score sat di nangam dama naan la garab ma ci yooyu dëgg la mais ñi ciy dox laa la wax wala ñu lay wax ay carte kat la mhm. juruñoo wax mhm. nit nag ni la yare sa biir kër noonu ngay wane ci metti alakul yàlla ndax léegi nag ñun ñëpp wala ñeneen ñu mel ne dul moom li may dénk nit ñi mooy nan bàyyi internet bi ni fooye euh, saaga du ñëpp lañ koy def am na ñooy saaga ñoo xam dañ fa jaar yàq ba faw surtout nan xam loolu nit ñi. Mhm. li ci yàlla mi ngi def ci nit ñi du ñëpp la ni tooj. ñun nag yéenewul lu dul Sénégal ak jàmm suñu réew dëgg ñu fee dëkk. Mhm. man nee naa leen lu dul footballu Sénégal nit du ma gis ci internet. du ma ci mhm. wax. du ma ne kaana ñaanal leen. doxewu ma ngir xam-xam. ñuy jëflante yoo xam na ne yaay kan un point en trait loolu rek mm-hmm. doy na sa dëgg la de ñeneen ñi ci des bu leen lijjanti garaaw macha allah am na ñu la bu la ci mm-hmm. ñu balan sax moo lay arrangé parce que la amal njëriñ ndeysaan jërëjëf sëriñ duñu weexalub sëriñ amuluñ jaamay loolu wax dëgg amul benn njëriñ mais dañu waxante dëgg na ñu la cee xam nag ngir sëriñ bi jàpp na ngir sëriñ bi ba faaw sa kóolare ak moom sax mm-hmm. loolu la rek. dëgg la de am ñu la ciy jaar gëm la ci yàgg laa siifar dañuy xam yaay kan. Mhm. ñun lu ëpp nit ñi seetaan ci àdduna xam nañ ñooy ko ñooy ñan ndax jëflante ñoom ñu. dëgg la ñun ñëw ñoo ñoo ci xam. Mhm. waaye ñun ñu xam ñëpp day jëflante ñun xam nañ ñooy kan loolu rek moo ci solo. sama kàddu gu mu di daal mooy sant ñëpp gërëm ñëpp ñëpp àq di baal mm-hmm. Mm-hmm. di ñaan ci réew mi jàmm. di ñaanal ñëpp jàmm di mm-hmm. baalu ñëpp àq nag. ku mu mën doon muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñu ngi lay jéggul di la baal. baalu na ñëpp àq. mboolem lu nit gis rek wax ko wala mu wax ko jéggal nañ ko ngir Sëriñ baax mboolem loo xam ne sama fan mm. xam na man maay kan loolu amul solo sama diggante ak mm. te lii ñuy def nii nag xam ne ndigal lañ ci amoon ba di ko def loolu moo tax su ëllëgee bu Sénégal doon football bu nu amaatoon ndigal def ko dañ koy def dëgg la amul luñ ciy pressé wala luñ ciy taay mm-hmm. waaye maa ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak di wax ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf loo alalu Serigne Saliou wala ma ne Serigne sant lañu la gërëm nañ la bu baax a baax ndax sa bëri sëriñ yoo xam ne te jii bi ma leen woowee sànq ba léegi nanguwuñ maa jël waaye yow bi ma la woowee na ma daan wuyoo noonu nga ma wuyoo waat kon maa la ci sant bu baax di la ci gërëm tey ñaan sama borom booy defal jàmm ñu ñëpp ci daraje yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam